ci euh, lépp jëm ci waajal bésu Serigne Touba boobu di màggal Touba gi tey nag soxna Ami Mbacke Balla Dior di daas bu ministère Dame Diop moo fi yabaloon soxna Marème Diop mi indi ab barkeeloom ci liggéey bi nga xam ne sëriñ bi woote na ko mu jëm si fii ci jumaa ji mu toll ci ñaari junniy masque ak juróom-benni keesi euh, alkosel loolu nag mu wax ne Euh, li sëriñ bi sëriñ bi santaane liggéey bi mu dégg ko rek xelam ak xolam yëpp dafa jëm ci li sëriñ bi bëgg mu xam ne su ko manoon daf koy def lépp waaye bi mu ko mënut it egg na fépp waaye lim man nag lu mu néew néew ndomp ci sat la bokk na ko def te fas bokk ci ñi nga xam ne dañuy jiitu ci liggéey bi loolu moo tax mu yebal fi soxna Mariam Diop mii tey jii mu ñëw andi ko ñu di ko xamal na nekk liggéey boobu agsi na loolu itam nekk ab soññi ci képp koo xam ne ab taalibe nga bu yaakaar Serigne Touba xam ne ndigalu Serigne Touba jóg na te bu ndigalu Serigne Touba jógee lay war goru taalibe bu nekk muy mu def ca kemtalaay kàttan nam ko mane rek mu defee ko ni te ñëpp seen yéene doon bëgguk sëriñ bi mu amee ko ni ko bëggee moom nag defee na ko noonu ci euh, bu teel li ko defee mooy soññ boppam soññ itam ñi nga xam ne moom ñoom ñoo bokk toolub Serigne Touba bii ñu di ci bay kon nag soxna si boo demee nga jottali ko suñuy nuyoo ak suñuy cant te xamal ko ne ko liggéey bi agsi na danañ ko ko defal ci liggéey bi Sëriñ Tuubaa bi incha allah wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu. salaamaaleykum wa rahmatullah mbokki Touba mbokki daayira muxaddamatul xidma bu Touba ñu ngi leen di nuyu di leen ziar. ci turu Serigne Mountakha Bachir Mbacké xalifa général kulli murit di leen jaajëfal ci liggéeyu Serigne Touba bii ngeen nekk leen ci jaajëfal bu baax a baax di ñëw rek di indi barkeelu soxna ami Mbacké Dage bi nekk ci ministère u Dame Diop ministère de formation professionnel ak artisanat emploi di mu ñëwaat rek di indi barkeeloom ci liggéeyu maamam bi ak soññee bi nga xam ne nii xalif général des mourides soññee na ko ci masque yi ci li jëm ci waajtaayu 18 euh, safar di màggalu cheikhul xaddim gi nga xam ne moom lañ jub mu ñëw rek indi tàmbaleem di ci barkeelu ci tàmbaleem di indi nag euh, comme ni ko sëñ Abdou Lahad Bousso waxee lu mu xeeb waaye nag di soññi boppam di soññi képp koo xam ne taal taaliba cheikhul xaddim nga ak képp koo xam ne jullit nga ci waajtaayu bësu màggalu sëriñ xaddim cheikhul xaddim gi nga xam ne def ci sant subhaanahu wa taala boromam bi di woo woo ñëpp pour ñu santale ko ko eh, di waat jullit yëpp rek ci lii nga xam ne nii moom la indi nga xam ne mooy masque yi ak alcogel bi lim bi sëñ Abdou Lahad wax na ko mu nekk lum xeeb lool nag waaye rek mu nekk tàmbaleem ci bis bi eh, di sant ñëpp di gërëm ñëpp macha allah eh, ci lii nga xam ne nii soxna Amy Mbacké Daaj def na ko yabal ma fi ma ñëw indi ko. teg ko ci loxo daayira bi yëpp ci njiitu Serigne Abdou Lahad Bousso di sant bu baax a baax nag di sant ñëpp di soññiwaat jullit yëpp ak muriti Sénégal yëpp ci lii nga xam ne sëñ bi santaane ko ñu def ci lépp lu ñu mën ak liñ mënut def ci lu kawe suñu njort barke Cheikhul Khadim jërëjëf